Diamalaye organisation écologique ak yuy xeex ngir sàmmoon teg aalam gi ñoo fa dal di daje littoral bu set wecc te ñu ubbil ko ñëpp plage bu amul tabax lu ñëpp moom kenn waru koo aakimoo loolee la ñuy liir ci pancarte yi. lu nimal li ñu ci jublu ñoom organisation yi mooy dal di gunge dogal yi nga xam ne mooy dal di sàmmonteeg littoral bi te président Bassirou Diomaye fay dal di koy jël. dañu saxat saxatee tefes gi géej gi day avancé. pollution dafay am ak changement climatique loolu nag buñ ci tegee ay nit yu nga xam ne dañuy teg ci li nga loxo ci li ñëpp bokk jaaduwul moo tax président de la république jël décision bu am solo ni lépp lu ñu jël ci wàllu tefes gi arrêté na ko li ñuy def mooy ànd ak moom ci décision bi wan nit ñi que li muy wax d'accord nañ ci li lool loolu. yàgg na nag ñoom ñi nga xam ne ñooy xeexal alam gi di sàkk ñu dal di dakkal lépp luy travaux ci bile zone nga xam ne dañoo jàpp ne dafa sensible dara waralu ko lu dul ne dañoo am ay jafe-jafe érosion côtière waaye tamit am na njeexital ci climat bi waaye tamit ci wér yaramu doomu aadama yi yi ngeen gis yëpp ci kaw ndox la ne ndoxu taw bi nag bu fekkatu amatul yoon lii mënul dem géej lii mënul tak ñun waa jàmmalaay ñu inondé te ñun nag loolu dañ dañ koy kat inondation day ami jàmmalaay parce que kër yi fi mu tege zone bu nga xam naturellement ndoxu taw bu daan ñëw fii la daan tag muy ndoxu eaux usées yi toj fooseeg yooyu fii lay jubal parcelle ak feneen zone alentour yi Nord Foire day roogalaat ñëw fii yile organisation nag bëgg nañoo amal ba askan wi dal di xam yi nga xam ne moo dal di ñeel gi nekk ci gi bëgg nañoo amal it ab randonnée ci littoral bi foofee nga xam ne lu toll ci fukki junni doomu aadama dinañ fa teew ginnaaw gi it dinañu taxawal ab fédération boo xam ne moom mooy yor lépp lu jëm ci sàmm littoral bi.